waaw salaamaaleykum euh, man la madame Barou Dieng euh, secrétaire générale parti socialiste fii ci Xombol en même temps aussi euh, présidente union départementale des femmes du parti socialiste au niveau du département de Thiès voilà. waaw suñu position fii mooy wii waaw ñun wii la ñu wax ci référendum bi parce que man bi ma gisee texte référendum bi liir ko. gis ci sama bopp ndax ci assises yi dama ci bokkoon gis ci sama bopp aussi parce que rien que pour le premier point dama koy faral di wax pour les cinq ans dafa ma jaral ma voté oui far nag yàlla def euh, suñu ligne du parti nekk oui suñu secrétaire général ñëpp wax wii donc nan dañ ma fekk si waa euh, njàngat bi ma ci def mooy le parti socialiste ku ne xam na ne parti bu mag la. Euh, unanimité dañuy faral di wax ne yonent bi amu ko woon kon Ousmane Tanor Dieng mënu ko am parce que lecture bi ma amoon ba ne wii mënoon naa ko am ne non référendum bi dafa concerner d'abord le citoyen su xoolee ne gis na ne war na mën a voter librement na dem voter su fekkente ne gis na ne lii doyu ko il a le droit de dire non donc damay jàpp ne ñaari aspect la dafa am aspect politique am aspect citoyenneté voilà donc ñooñu mënu loolu c'est normal dans un parti comme le parti socialiste parti buy màgg il faut muy am ñuy wax wii di wax non waaw li leen motiver damay jàpp ne c'est toujours euh, li ma wax léegi rek li leen motiver mooy xëy na euh, dañu yaakaar ne noonu la ñu war a wax parce que référendum bi dama jàpp ne liir nañu ko ne noonu la ñu war a wax mais jàpp ma ne euh, mbambaxu wii wala mbambaxu noonu moo leen yóbbu voilà parce que référendum doo xool nit ki texte bi ngay xool ci référendum bi la personne de Macky Sall intéressé wuñu euh, la personne de Ousmane Tanor Dieng intéressé wuñu li ñu war a intéressé mooy le texte bi ñu soumettre voilà. Euh, wax a ci waaw moo ma ci gën a intéressé euh, dañ ne wax waxeet am na ci mais ci wax waxeet boobu bu mu muur bu mu muur le reste. même même su fekkente ne parce que ñëpp xam nañ ne Macky Sall waxoon na daf koy dindi conseil constitutionnel euh, defe naa ne un républicain du du mën a tebbi waxam ci li ma jàpp man parce en tant que républicaine mais su fekkente ne dafa ne dañu dañu dañu wax ci euh, kii bi nu mu tuddati mandat cinq ans bi euh, ñun waa parti socialiste ñoo ko fi indi woon Ablaye Wade moo indi sept ans yi kon su ñu nee dañ ciy dellu même bu comme bu concerné wul mandat bi mais ultérieurement problème bu muy régler ultérieurement pour ñeneen ñuy ñëw waa sama kàddu gu mujj mooy euh, di lancer un appel à tout le monde ñu wote wii euh, au soir du 20 le wii gagnera à Khombole lool mooy sama souhait loolu aussi laa bëgg